ah waaw mais catalan yi xool leen Ansu Fati ñu ngi koy defaraat entraînement individuel pour moom nga xool la muy dugal ah waaw lay ndeysaan catalan yi Ansu Fati actuellement Barça da ko réserver entraînement individuel pour moom bu defee collectif ba pare dañ koy def à pour moom képp ku ndung bu mu retrouver waat niveau ay Ansu bu retrouver waatee nga gis Lamine Yamal ni ko ñëw ël moo ñëw ah ah Barça eh, eh mais Barça fowuñu de Barça fowuñu imaginel Ansu Fati retrouver waat niveau li ma leen waxoon Barça actuellement da ko tegal benn entraînement individuel pour moom droite bi dugal camp yi waaye pressing un contre un loolu moo nekkoon ci moom bu ñëwaatee ah baax et et eh, eh, eh, après Ansu Fati gars yi Lewandowski xool leen ko ah, baax na man fàtte woon naa ko équipe Barça bi de nee na leen du bàyyi benn xale ci ay mbiram xool ko ah gars yi lew foowatul de Lewandowski nii ma gis nii noo foowatul ah baax na xool ko mu ngi rey boppam de avant pré-saison bi en tout cas catalan yi daal daa mel dañ leen a xabtal non mais catalan yi ma seen xel mën na daal pour saison bi di ñëw non seen xel na daal non mais seen mën na daal merengue yi c'est jënd nañ ay joueurs yoo xam ne nii macha allah te daaw danoo exceptionnel jël Ligue champions ñoom seen mais déwén lii ma gis nii noo bu continuer au classico 2 bi dina neex waaye non dina neex xoolal lii rek